maître Thiam oui oui maître ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. ñu lay fay baax baax maa ngi fàttali ne yow yaay maître Amath Thiam El Amath sax la ñu koy wax juriste bokk fii ci kër gi ay ca euh, mu ngi noonu verdict bi ñu doon xaar daanu na deux ans ferme pour Ousmane Sonko contre Ousmane Sonko on va dire deux ans ferme ci ki nga xam ne itam mooy Ndeye Khady Ndiaye alors euh, maître. bu fekkee da ñu mën a da ñu euh, bëgg rek waxal un ci li nga xam ne moo di verdict boobu euh, lan nga ñu ciy dolli parce que am na question bu ñu posé léegi le temps question bi dellusiwaat ci sama xel. Euh, par rapport à ça ab kii bu nga ko doon laajte léegi Birama mais juste rek commenter ñu un peu le verdict. bon dans un premier temps il faut dire que euh, Ousmane Sonko le juge a montré aujourd'hui qu'au regard des preuves établies par la partie que l'infraction de viol n'est pas établie. Parce que les éléments constitutifs donc ne sont pas réunis euh, conformément à la... maître maître Olof Olof mu gën a leer. Ah, Olof d'accord ah d'accord <laughs> maa bon. comme ni ma ko waxee woon ne. Hmm. tey tribunal juge bi waree ne infraction viol bi euh, ak euh, menace de mort bi yi Adji Sarr porté woon plainte Ousmane Sonko. Djimbira wane na tey ne preuve yi matewu ko preuve yi wane ne viol am na matewu ko parce que waxoon naa ci benn émission ne c'est le juge qui la charge de la preuve parce que l'administration légale de la preuve est légitime appartient au juge kon juge bi bi mu seetee ci intime conviction gis na ne maanaam élément yi nga xam ne moom la partie civile bi produire pour attester viol na viol am na loolu amul dàq na ko maanaam acquitté nañ ko ci loolu ci infraction de viol ak euh, menace de mort bi léegi parquet bul fàtte dafa dugaloon ci réquisitoire benn infraction bu bees boo xam ne bu ko neexoon dugal ko ca njëlbéen ba wala mu dabu ko li ñuy wax réquisitoire addi li ñuy euh, additif wala wala wala wala euh, wala wala supplétif bi mais dafa bàyyi ba réquisitoire bi jour kii bi procès bi mu jël doole ci li ñuy woowee corruption de la jeunesse mais su ko ci parti dugalul doon mu xam kon Ousmane ko tey de yoon da koy setal wecc wecc mais beneen infraction bi ci ñu moo tax par parquet retenir infraction boobu na da am na corruption à la jeunesse mu c'est prévu par l'article 324 du code du code pénal. donc ça existe. mooy si ak mooy yooyu. am na ku ma woo ma ça n'existe pas moo tax ma doon laajaat pour mu pour mu kii ça existe pour muy leer. na na dem na dem xooli article 324. Mhm. alinéa 2. d'accord. du code pénal ñu ngi ko ci wax ay affaire débauche yooyu yëpp fa la ñu koy c'est-à-dire ce qu'on appelle les infractions connexes aux infractions contre les mœurs xam nga les infractions contre am na viol am na pédophilie am na attentat à la am na voilà infraction yoo xam daal dafay contre c'est contre les mœurs ci la bokk mm. Mm. ci nday yooyu mi ngi mel ne ñu noonu la infraction contre les infractions contre le terrorisme mais mais infraction terrorisme am na le terrorisme am na financement du terrorisme am na apologie du terrorisme yooyu ce qu'on appelle les infractions connexes. mais mais maître bu ñu waxee ci infraction bi ni ñu requalifier les faits. bu ñu waxee ci hmm. infraction bi normalement loi bi lan la prévoir. loi bi dafa prévoir ne yaa ngi yaa ngi sanction yaa ngi yaa ngi peine. moo renvoyé ci article 323 bi mooy présomptive bi mu bi mu toppeewoon Ndeye Khady Ndiaye. gisoo présomptive bi mu toppeewoon Ndeye Khady Ndiaye da ko disqualifié aussi. bi mu toppee Ousmane Sonko la toppee Ndeye Khady Ndiaye. loolu la ñuy wax l'empreinte de criminalité. moo tax l'empreinte de criminalité. soo demee ci article quarante cinq alinéa trois daf ne en cas de délit lorsque l'auteur auteur bi ñu topp mu nekk ñu lay toppee délit wala crime peine bi auteur principal bi jël moom la complice bi jël moo tax Ousmane ko peine bi ñu ko dóor ñu dóor ko Ndeye Khady Ndiaye loolu la ñuy wax empreinte de criminalité. Hmm. voilà moo tax gisoo ñoo bokk même peine ak moom même dommage intérêt yi ñu fay deux ans ferme deux ans ferme six cent amende six cent mille amende six cent mille amende. Hmm. voilà mooy empreinte de criminalité. ok euh, euh question bu Adama Fall di laajte nee ndax juge bi mën na condamner sur des faits non instruits. pardon selon les faits. allo. oui. mu ne ndax juge bi mun na condamner sur des faits non instruits. xam nga parquet yoon da ko may benn doole bu am doole ci parquet yoon da ko fam doole trop ci procédure pénale. ok benn à ah, parquet à tout instant su ko neexee mun na ñëw jël benn infraction bi dugal ko ci biir. loolu moo tax parfois da ngay dégg procureur bi si d'instruction day am ce qu'on appelle li ñuy wax réquisitoire introductif mooy infraction bi njëkkee euh, dem ba ci digg boobu amee yu wax c'est réquisitoire hmm. day doole dolliwaat. su nekkee am na lu mu bëgg en cours de l'infraction gis na yeneen infraction yu bees yoo xam na ko ci dolliwaat mun na xaar ba jour procès mu def ce qu'on appelle ci biir réquisitoire mu dugal ko ci. moo tax ci réquisitoire bi mu ñëwee mu dugal ci corruption à la jeunesse. Hmm. mu dabu ko da ko dabu foofu. ok. À tout instant de la procédure, le parquet peut émettre des demandes et le juge est, est obligé d'y statuer et d'y donner acte. ok voilà. donc donc bu ñu déggee sa wax euh, mën nañ jàpp ne euh, respecté nañu li nga xam ne moo di euh, nu ñu ko waxee sax procédure yi. waaw procédure yi bon xam nga procédure respecté ma respecté ñu ko loolu c'est relatif loolu avocat Ousmane Sonko quasiment ñoo ci mën a tontu parce que ñoom ñoo nekkoon au cœur des faits. Mm-hmm. bon ñoom ñoo a wax ndax Ousmane Sonko respecté ay àqam ak ay yelleefam parce que je ne peux pas me susciter aussi penser à la place de ces conseils. mais au regard di li ñuy wax nii bon Ousmane Sonko am na ay avocats xanañ nañ xam nañ leen yoon may. bu nekkee yoon am na lu mu parce que gis nga bi ko génne d'accord ci. dañ ko attaqué devant la chambre d'accusation chambre d'accusation confirmé ko. ñu dem cour suprême devant la chambre pour préserver pour défendre les intérêts Ousmane Sonko ils vont le faire voilà. léegi ñu ngi may pour le pour le mandat de dépôt parce que sànq ñu ngi naan ba xam naka la ñuy def pour euh, Ousmane Sonko la dañu koy jëli ak naka. bon loolu des na ci des na ci des na ci parquet. parce que puisque la décision mi ngi nii génn. dañ koy arrêté léegi nii. waaw parce que dañ ko parce il est condamné à deux ans de prison ferme. waaw. donc léegi parquet moom mooy cëgal kuréel nga xool ndax day décerner mandat pour ñu dem jëli ko ou pas parquet moo ko. mooy hmm. appliqué. ok man dama la bëggoon laaj mais tontu nga ci mooy ba xam ndax euh, ay avocat am am nañu possibilité euh, yóbbuwaat kii bi nee nga moom mun nañ dem. Euh, chambre d'accusation appel ok. non non non loolu ci ordonnance ba laa wax. mënuñu dem appel mais mun nañ mun ñoom lan lañ ban ban pour yow. mais ñoom non non Ousmane Sonko il a été condamné par contumace. waaw non moom foofu foofu amul appel mais dama ne est ce que nii nii verdict bi wa daanu na et tout léegi ñoom est ce que am na yeneen possibilité. ah possibilité bi ñu am ah kanaa Ousmane Sonko ñëw rendre accepté nekk prisonnier. ok. loolu rek la mais fu mu toll def appel parce que boo demee ci article 313 du code de procédure ah. daf ne euh, euh, lorsque une personne est par contumace l' appel est fermé il faut pas faire l' donc pour l' instant là rien à faire parce que fu mu ñëw constituer prisonnier pour ñu mën a préparer waa defaraat procédure bi voilà loolu ko may. ok